ربما سكر لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالعاي جل رحمن مقتدرا وهو رحيم مطشعا وهو يخنيني به خليت عن الأرباب فيه أبد وأردني من أجرا خير ممنوني قد ذا بين شظعني عنيه عن المراحي وهل أرعى لمن يوني وجاءت غير له بسير ساقد منه لمن أصام بمفروض ومسنون سرد القزايد لواد أنكره بها والإشاق ما قرفاق مسنون نانا كون سنچرنا sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm nee na ni leen ko waxee ci làmmiñam léegi ci biir saal ba muy cant gu rëy ndax xam na ne yéen da di cosaani yoon wi ndax dégg ngeen sëriñ Abdou Lahad ba leen di ganesi ca làmbaay la mu waxoon ne moo ko yëkkati ndax foofa kat nee na am na cosaan lu rëy ci juddug yoon wi seenug njàmbaar ak seenug dogu ak seen pasteef ak seenug bañ muy loo xam ne ba nëgëni nag yàlla def na ko ci yéen ndax Serigne Touba lépp lu ko sunu borom mayoon mu jox ko nit rek loola dafay des ba faw nee na waaye loolu rek la xam ci yéen ci taxawaay ci pësteef aku fit ak fulla ak jom nee na kon nag nee na kon yàlla def na ñu ngi sant yàlla bu baax ndax liggéey bii kat ci mujjug Cheikh Sidi Mokhtar ci mujj gee mujj nee na lii liggéey bu mujj la ci moom ci ci liggéeyam nee na yàlla def mu yónni woon ko ci sëñ bi. sant ko liggéey bii nee na yàlla def laata ñu koy tàmbali sëriñ bi bàyyi koo fi ki fi nekkal sëriñ Touba rek képp kum sant ka fa nekkoon da koy yeesal ba bi sëñ Mouhamadou Mountakha ñëwee itam ngeen dellu ba ci moom mu joxaat leen ndigal ne lépp loo xam ne Cheikh Sidi Makhtar digle woon na ko mi ngi koy yeesal di ko wéel du ci dindi dara yeen itam ngeen tambali ba ag àgg fii tey nee na ko don indi nee sentu wuto tuwutoon ne liggéey bi dana ag fi ni nee na donte xamna senu seenu ndax kër doomi sëñ touba yu bari def ngeen fay bâtiment ci senu nek bañ tudde ko nee lolu kon ciosan la ci yeen waaye nag fii ku fi ñëw da nga xam ne mbirum sëñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am kon nee na nii ko sëñ daam waxee rek ci lii mu leeral ci diggante seen maam ja ak sëriñ bi nee na lii firnde la ca loola nee na kon nag ñi ngi sant ñëpp ci turu Cheikh Mamadou Mountakha di leen gërëm bu baax a baax ndax xam na ne yéen. buñ laajoone bakkan kenn du len ci jitu nee na buñ laajoone bakkan kenn du leen ci jiitu. ndax bañ ca làmbaay kat xam ngeen histoire ba. nee kat xam ne sax ko gëna mëna netli ndax bañ len di tital di wax ne dañuy rendi murid yi. na ko netle. Ka nettalee. yéen a njëkk ak njambar ba lolo jallut ci bur yeen dajelon nee na loola nag ne ci yeen ba neugani nee na kon nag sëriñ bi mi ngi leen di sant di leen gërëm lii nga xam ne nag liggéeyu sëñ Touba la tam baaxe fu ne rawate na ci jàkka li ci sorom borom daale nee na yàlla na leen ko yàlla fay ci barkeb sëriñ Touba li sëriñ Touba daale ci ku koy liggéeyal itam ngeen liggéeyal ko ko ba làq ci ngërëmam ku fi jóge yàlla na nga yëg ak yokk ci sa bopp ku ci defoon alalam itam na sam xel na xel dal ndax jël alal kat taq na ci xol waaye def ko ci lu baax mooy lépp solo moo tax Serigne Touba da daan wax ne dee leen xool alali yi fi ngeen koy dugal ndax nit alalam ab xolam topp ca kon nag ku laaj dugal ko ci liggéey Serigne Touba tàbbal ko ci jàkk war dalal sa xel kon nak neena mi ngi sant bu baax neena ngeen tok fa wat ndigal rek tane ci liggey bi ndax ci ngeen nekkon ba leneen ndigal kon neena na bi mi ngeen di sant bu baax taxaway bi rafet na lool nee na saa su Ningen masaan Ningen ñëw seet ni ngeen fi dekke ni ngeen fi toge neena mu xamne jom deug ngeen fi toge wax ah, la neena liggey bi itam ku fi dugg da ngay mel ni ku ne ci jumaay Tuubaa rek wala nga nekk Madina wala nga nekk Makka nee na loolu tawfeex ju rëy la nee na loolu leen sëñ Tuubaa defal nee na la seen xel dal seen xol set na bu baax nu kawe seen njort nee na ko se bi ko seenee liggéey bi kawe na ci njortam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.